barke borom Touba kon mbokk yi nga xam ne ni yéen a ñuy seetaan foo leen mën a nekk ci réew mi wala bitim réew ni ñu leen ko waxee woon léegi rek euh, kilifa gi nga xam ne moom lañ doon taaxeerlu ëgsi na muy Serigne Moustapha Diatara moom mooy saytu fi nga xam ne nii moo di Daaray Kaamil ni ñu leen ko waxee léegi moom moo fas yéene tëj mboolem jataay yi nga xam ne nii ñu ngi ko ànd ak yéen ci suba ak léegi ngir dundal bis bu tedd bi ndigal lu tedd li euh, bàyyee ko ci xalif général des mourides Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg loolu te Euh, ñu dundal ko fii ci Daaray Kaamil dundal ko ci yeneen bërëb yu fasantikoo ci biir Touba ak biti Touba kon sëñ Moustapha ñu ngi lay nuyu di la ziyaar bu baax a baax fekk la nag sa bërëb muy bërëbub alxuraanul karim di Daaray Kaamil waaye fekk la ci bërëb boo xam ne ni tey mën nañ ne mooy jëwri ni mbooleem bërëb yi nga xam ne foofu la ñuy jëfe ndigal li muy Daaray Kaamil ndax bu ne Daaray Kaamil di kërug alxuraan ñu fiy jëfee ndigalal jàng alxuraan ak xasida mel na ni indi nañ mbir mi fi nga xam ne ni foofa la yelle kon ginnaaw bi ñu la nuyoo ziar la dañ lay bàyyi nga nuyoonte ak ñi nga xam ne ñu ngi lay seetaan euh, ñu door a dugg nag ci laaj yi ak tontu yi ñeel tëccal waxtaan bi. bismillahi rahmaani rahim. wasalaatu wasalaamu ala asraf almursalin sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokki jullit yi mbokki taalib yi fu ñu mën a nekk ci àdduna si di jànloo ñun ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkeel ci bis bu màgg bis bu tedd bii nga xam ne moom la Cheikh Mouhamadul Mountakha joxe ndigal E, ñu di ko def tey jii ci tubaa ak ci barab yu bare bari ci réew mi ak ci àdduna si sax muy ndigal lu am solo ndax weer bi ñu koy def muy weeru muharram nga xam ne may weer wi jëkk ci at mi nga xam ne ci atum lislaam atum jullit mooy seenu tàmbalikaayu at di al aam al hijri tey jii di ci ñetti fan ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala ci xew-xew bi amoon ci at mi walla sax du ci at mi waaye ci at mi lañ ko taarixal ne du caageen yonent bi alayhi ci weer wi wala ci at mi la gàddaayoon ci weeru rabiul awal ci la gàddaayoon waaye sidna Umar ibn Xattaab radiallahu anhu mooy ki nga xam ne moo tëral ñu tàmbale al aamul hijri ci muharram muy loo xam ne jullit yi ci àdduna si yëpp dañ koy bàyyi xel na ci réewu lislaam yoo xam ne sax euh, bis bu jëkk bi ci muharram moom dañ koy feetu mu mel ni premier janvier fii ci nun ni janvier premier janvier mel nga xam ne mooy atum milaadi ñu di ko feetu ci àdduna si yëpp waaye ci alamul islaam yi réew yu bari Euh, bis bu jëkk ci muharram dañ koy feetu ngir di fàttaliku xew-xew bu rëy boo xam ne moo ci am xew-xew boobu mooy gàddaayu seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam bàyyi ko màkk dem madina munawara ñu di ci fàttaliku dëgg la gàddaay du dañ mukk di am fekk addunaa ngi sax gàddaay di am gàddaayu jóge fii jëm ci beneen dëkk mun naa bañ a am waaye gàddaay jóge ci lu baax jëm ci lu ko gën gàddaay nekkoon ci lu la warul nga bàyyi ko jëm ci li la war gàddaay jikko yu bon yëpp yi nga xamante ne suñu borom subhaanahu daf koy tere ab julit kon bu waxtu wii dikkee jullit bi xelam dafa war a nekk ci fàttaliku gàddaay gi waaye du fàttaliku rek jóge ci barab dem ci barab mm-hmm. waaye gàddaay day wéy ba baaw gàddaay googu nag mooy bu ñëwee dañ noo war a fàttali ni lan moo taxoon muy gàddaay ak lu ko indi woon ndax nit yàlla yëpp gàddaay nañu nit yàlla yi ñu xam yëpp yëpp yëpp amu ci kenn koo xam ne bariwul koo ci xam ne fa nga dëkk juddoo fa yaroo fa fa nga nekk ba lépp fekk la fa loolu moom bariwul te am bu ma ne amut it du ma ne amut waaye bariwul rawatina sunu kilifa gu mag gu tedd gi di Cheikhuna Cheikh Al Khadim xam ngeen ne moom fii tey di Touba du cosaanam du cosaanu ay askanam du cosaanu lennam gàddaaye ko ënd fii moom ci boppam gàddaaye ko indi ci dëkk bi ba mu toll nii mu toll tey ji kon loolu bu Cheikh mun Mountakha digle ñu amal ci bis bi ci biir atum mu jëkk mi ci gàddaay gi di muharram muharram sëñ Tuubaa fonk ko lool xasidaam yu bare bari tënkee na ko muharram ñuy jàng xasaayit xam nañ ci dara xasida yu bare bari muharram la ko takk tënk ngir xam fooraayu gàddaay gi ak xam ak fonk gum fonk yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon sëriñ bi dikk ci lii di bisub jàng xaside yi jàng xaside yi nag buñ koy wax dañoo war a bàyyi xel ne xaside yi lan moo nekk ci biir ba tax ñu di ko jàng ndax dañuy jàng xaside yi rek ngir dafa neex wala dañuy jàng xaside yi rek ngir dañ koy bànneexoo xaside yi yii rekk moo ci nekk màggal yàlla euh, salaatu ala nabi di kañ yàlla ci turam yi nga xam ne mooy asmaullahi alxusna moo ci jëkk salaatu ala nabi ci biir ak wax jikko yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak i meloom ngir lan ngir ñu mën a xam nan lañ koy royee ndax koo xam ne dañ la ko royloo waaye fekke woo jamonoom xamoo nu mu meloon xamoo lu mu doon def roy ko dana jafe mm-hmm. waaye buñ jàngee xasaayit yi rek waxuma la sax xam di koy yonent bi waaye meloom ak nu meloon sax bu ngeen demee ci xasida yi xad kaana za tawassuti fi lxaddi jaali sutati walam yakun bi mafrati walam yakun bi adam jëmm ji sax daf la koy portaleel ba ne leen nii la meloon jëmmi yonent bi alayhi salaatu salaam sëñ Tuubaa da koy portaleel ba mel ni yow yaa ngi nii janloog moom di ko gis kon bàyyiwuñ ci dara kon xasida yi képp ku koy jàng danga war a am paspasu xam ne yaa ngi tudd tur yàlla yëpp yaa ngi tudd turu yonent bi alayhi salaatu wasalaam sëñ bi indi na ci xasida yi ay turu yonent bi yu bari ba indi ci tur woo xam ne du buñ ko doon seet ci téere arab yi sax duñ ko gis wala ñu di ko seet ci dictionnaire yi du ñuy wax paraqleet dem na ba boo demee ci muxaddamatul xidma da nga ko gis tur wow boo jàngee muxaddamatul bu fekkee jàngkatu muxaddamatul xidma nga boo demee da nga ci gis tur woowu ak gis yeneen tur yonent bi yu tuuranke yoo xamante ne sax boo demee ci téere yi doo ko gis kon kuy jàng xaside yi jàppal ne yaa ngi def salaatu ala nabi kuy jàng jàppal ne yaa ngi euh, def ndigalul sunu borom li mu waxoon ne walillahi al asmaul xusna fad'uuhu biha sama tur yi dee leen ma ci woo muy ñe juróom euh, juróom-ñeent fukki juróom yeeg juróom-ñeent yëpp bu ngeen dee dugg ci biir xasaay di lépp da ngeen ko gis te suñu borom nee nag képp ko xa yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na turam yooyu lépp lu ko ci nit ñaan yàlla dana ko def te boo duggee ci biir xasaay di tur yooyu yëpp sëñ bi dana ko ci indi xëy na man naa bañ a dikk ci genn xasida waaye am na xasida yoo xam ne sax indi na ci juróom-ñeent fukki tur yi ak juróom-ñeent yëpp indi na ci kon kii jàng xasida yi jàpp ne mi ngi zikkar kii jàng xasida mi ngi jàpp ne mi ngi def salaatu ala nabi kii jàpp jàng xasida yi ne jàpp ne mi ngi def baaqiyaatu saaliha kii jàng xasida yi mi ngi jàpp ne mi ngi tagg yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon yooyu yëpp yow mi koy jàng bul jàpp ne rek yaa ngi tiim nii di ko jàng rek waaye dangay jàpp ne yaa ngi zikkar sikkar googu ngay def ci xaside yi moo lay yéegal di la yóbbu ci daraje yu kawe yoo xam ne yow mën nga koo bañ yëg waaye boo ca eggee xam ko boo ca eggee xam ko ndaxte xaside yi day tarbiye nit mhm. li jëkk ci xaside yi mooy day fekk nit mu nekk nit ku doy waar ku sàmba booy koo xam ne dara ñoru ko ci wàllu yàlla lu dul àdduna rekk ñoru ko mu nga gis mu taxu xasaay di ab diir bu gàtt nga gis ko mu nekk nit ku baax ku defaru koo xam ne sax yow dangay jàpp ne kii xanaa moom sëriñ bi ci boppam moo ko defaral boppam xanaa daa fekk woon jamonoy sëñ bi loolu doy na sët ci lim ci wax ne xasaay di faaqat suyuqa tarbiya nee na li sëriñub tarbiya sëriñu tarbiya mooy kii defar nit kii fekk nit mu nar a yàqu mu defar ko mu baax mu ne nag li sëriñub tarbiya boobu man ba defar nit kii ba mu kenn du ko gën sama xasida yi mën na ko nee na sax mën na lu ko faaxat loo wa kulla xayrin lu nit ji wut aw yiwit te di ko wut ci tur yàlla wala nga di ko wut ci leneen ak lu mën a doon na nga xam ne mi ngi ci biir xasida yi boo ci wutee am ko wa la xayrin la wax wépp yiw wu doon loolu bàyyiwul dara wa suyuuxa tarxiya seexu tarxiya bi nga xam ne dangay moom boo ko gisoon tey jii kepp jëmmam ak meloom mën nga cee defaroo sëriñ tarbiya moom foofu mu taxaw yow naan la defal bàyyil loolu mooy sëriñu tarbiya mhm. waaye seexu tarxe moom du caageen mooy koo xam na ngay taxaw moom moom mën nga koo gis benn yoon rek wala saa boo ko gisee képp jëmm ji du wax ak yow dara nga jëriñ ci moom am lu mu def ci yow ci meloom ci doxinam ci bëggam sunu borom subhaanahu wa taala ba nga xam ne boo ko gisee day saf sap ak sunu borom ba boo ko gisee faw mu am lu mu def ci yow bu fekkee daraa ngi ci yow ndax nit ki li tax mu mos nitu yàlla wala mu mos ci suñu borom dara bi ngi mel ni almet ak keesu almet xam ngeen bu doomu almet bi day am posen waaye kees gi nga xam ne it mooy kos almet gi day am poson bu doom bi amee poson te kees gi amul poson sawara du am mhm. bu kees gi amee poson waaye doom bi amul poson sawar du am mooy diggante sëriñ ak taalibe bu sëriñ bi feesoon dell ba yàlla jox ko lépp waaye taalibe bi amul dara ci Pastef gëmu ci dara day ànd ak nit ñi nii di def rek day sonn sëriñ bi sonn waaye leer du fa am njëriñ du fa juddu naka noonu itam bu fekkee taalibi bi mi ngi koy wut foo foo xam ne foofa nekku fa maanaam ma nga bëgg taal moom yàlla def na ci moom posté bu fees dell waaye sëriñ bi mu koy wut wala ki foog ne am na ko nekku fa lu mu taal taal du am safara kon ñaar ñooñu day dajee njëriñ li door a mën a am mm-hmm. almet gi day am safara doomu almet bi am safara safara mën na am kon loolu moo waral ngeen gis sëriñ bi di indi meloy ab murid saadix nu muy mel murid saadix nan lay mel ndax maanaam tànk que mun a goo murid boobu sëriñ bi du la mën a jëriñ mhm. lu mu bari la bari la nag lu ko yàlla may may lu may yi bari bari ak fu mën a egg ci yàlla tànk yow yow ci sa bopp defaruwoo ba mel noonu ak melo yooyu mu wax lu mu fees fees yow du la jëriñ dara moo tax loolu li tax ñu di ko wax mooy dangay gis ku topp koo xam ne fees na dell ak yàlla te du fa jëlee dara mu defe ne ca kooka la te fekk ci moom la moom ci boppam moo defarul ba kenn mënu koo defar ba defee loolu moo waral sëriñ bi indi sifaatu saadiqil murid boobu mu indi ñeenti melo yooyu mu ne murid saadix noonu lay mel mooy tey mooy lii ñu def tey mooy asidqu fi mahabbati cheikhi abad li ci jiitu mooy ki ki nga xam ne moom nga doxale sa diggante ak moom danga koy sopp bëgg ko bëggeel goo xam ne du joogeen tey jii nga bëgg ko bu subaa nga bañ ko wala bu la defalee li nga bëgg tey nga bëgg ko bu subaa bu la ko defalul nga bañ kooku koy def amum sëriñ sëriñ bi moom am na lu mu lay defar rek kon kooku da àndoog moom sa intérêt nga ànd moom waaye àndeewoo moom ci yoon yàlla àndeewu moom ci yoon tasawuf as-sidqu fi mahabbati cheikhi abad abad la wax day sax day sax ba faw waxtu woo ko gisee sa cofeel yokk ci moom loolu mooy base bi mooy bu ci jëkk waaye bu ma ñëwee ci sëriñ bi tey am naa cofeel ci moom ngir gis naa lim sol walla gis naa lim mel wala wax na ma lu ma neex ma sopp ko waaye bu ëllëgee ma dellusiwaat fekkaat ko neneen sama cofeel wàññiku kon lu abat la wax day sax boobu mooy bu jëkk bi summamtisaalu amrihi su warat lépp lu mu la digal nga def ko bu ndigal di egsee rek doo fi nekk di jëfandikoo sa xel wala ngay jëfandikoo sa xalaat loolu bu ñu ko waxee gars yi nga xam ne dañuy jëfandikoo seen xel di jéem a jàng li ñuy wax philosophie nga xam ne léegi jamono ji léegi damay wax ne ñi ëpp ci nit ñi yëpp ay falasifa lañ ay philosophe lañ philosophe du dara lu mooy benn waay boo xam ne rek dafa yor ay xalam boo waxee lii mu naan lii boo waxee lii philosophe loolu lay jàngale limaza ak kayfa yooyu lay lay jàngal lu tax ak nu mu demee yaar yooyu lu lay jàngal bu nekk si bopp yàlla sax boo ko waxoon bu noppee mu ne la waaw yàlla nu mu demee loolu ñuy jàng fa philosophie yi xam nañ li xam nañ li may wax loolu nag jamono ji ñi ko jàngul sax dañ koo def seen bopp mm-hmm. ñi ko jàngul sax dañ koo def seen bopp ba nga xam ne yàlla sax boo leen doon wax moo tax sëñ bi ne imtisaalu yi haysu wara def ndigalam boo ko xamee la tax mu digle ko nga def ko nga ñàkk xam la tax mu digle ko du tee nga def ko yow daal wax na ko rek danga ko def saa bu ñëwee moo xam suba la ñëw moo xam ngoon la ñëw moo xam heure bu mu mën a ñëw da war a daal def ko ci saa si wa tarku li ataraadi mutlaqan mooy nag li nga xam ne moo bari ci nun lool mooy boo ko waxut ci sa làmmiñ it ñenn ñi nag dañuy boole wax ko ci seen làmmiñ ak fas ko ci seen xol kilifa gi wax ba noppi ñoon ah moom de bu ko waxee woon nii moom de bu waxoon demoon ba jamono sàngam mu defee ko nii loolu mooy ahtiraat mutlaqan moo xam guddi la moo xam bëccëg la moo xam waxtu bu mën a doon waroo koo xalaat même yow bu fekkoon ne am nga xel mu gën a rafet xelam sëriñ bi sax waroo xalaat leneen loolu lim la wax bu fekkee doy longa ko wa maahu salabul ixtiyaar yi doo tànn dara lu mu la tànnal rek ngay def loolu nag buñ ko waxee nit li ma doon wax sànq ci ñiy jëfandikoo seen xel xam nga lu ñuy daal di wax teg seen kanam la mooy teg seen kanam ne ah loolu de moom dañoo bëgg nit ki daal dootu jëfandikoo xelam day topp ci benn nit rek topp ci gannaawam lu mu digle mu def lu mu tere mu bàyyi yooyu daal moom nangam nangam moo ne yooyu de bañal nañ ko sëriñ bi waaye nangul nañ ko benn waaye boo xam ne day sol benn blouse bu weex rek benn xale bu ndaw boo xam ne yaa koy mag fuuf mbaa jigéen sax mën na koo doon mu sol ab blouse am ñu di ko wutal aw tur wu ñuy tuddee docteur waaw waaw boo ko fekkee fam ne am jàngoro mu di la ko fayal mboolem sifaatu saadiqil murid yii ñu wax da ko jëfandikoo bu la ko waxee te doo ko sañ bañ bu ne la bu la digalee ne la tëddal ndigal la da ko daal di def bi saa si doo fa nekk daan ko ah waaw lu tax may tëdd ci taabal boo ko fa defee mu bàyyi la dem jël beneen malade sànni la fe malade yaa ngi taxaw di ko xaar waaw bu la waxee fu laal ci sa yaram doone ko lu tax nga di fi laal lu tax nga di ma def lii doo ko wax li gën a jafe bu doon xotti sa biir sax doo fi nekk di discuter moom ah kuy xotti biir de su wax ak moom ku dem ba am xam-xamu mën a xotti biirum nit kooku kenn du taxaw di fi wax ak moom kooku talul loolu kooku talul kuy wax ak moom kon li ngay bañal sëriñ bi wala li ngay dégg ci sëriñ bi yaa ngi ko nangul borom bulus yu weex yooyu nay góor nay jigéen nay xale boo fay dem rek moom da nekk murit saari xam moom xaw ma da ko nangul sëñ bi mu waaye gars yi moom danga ko nangu da nga leen ko nangul léegi moom wala yow doo faju <laughs> bis bu ne murit saari moom mënut a ñàkk ci àdduna mbaa ci mbirum diine mënut a ñàkk moom faw moom faw nga nekk murid saadixu gaa yi àdduna yi walla nga nekk murid saadixu gaa yi yàlla yi moom yaar yooyu moom fokk moom mënta ñàkk moom bu la neexee ak bu la naqaree kon loolu mooy ndigal lii nu sëñ bi digal jéemu nu cee xool lu tax sëñ bi dina ko wax mbaa lu tax sëñ bi di ko digle moom moo ko xam moom la tax mu digle ko moom xam na ko bàyyi ba ñu ñàkk koo xam noonu suñu ñàkk koo xam du ñu wàññi dara waaye moom xam na li muy def te buñ ko defee ba noppi incha allahu taala danañu gis li muy jariñ résultat bi ñëpp danañ ko gis amul sikk maanaam lii mu digle bis bu ñu demee ba weesu ko liñ fi def ci ay salaatu ala nabi liñ fi def ci zikrullah liñ fi def ci baaqiyaatu saalihaat liñ fi def ci lépp te loolu lépp mu ngi ci biir xaside yi bu ñu noppee faw mu soppi lu bari ci réew mi waxuma sax réew mi waaye réew yi sax laay wax àdduna sëpp dana ci soppi lu bari ndax fukki doomu aadama wala benn doomu aadama rek ñaari doomu aadama rek yu bokk àndandoo toog ci benn barab jànguñu alxuraan sikkaruñu jàpp képp jublu penku bu ñu dogoo ci ñaan yàlla lu ñu fa xëcc ci seen borom yàlla defal leen ko mm-hmm. nit ku yor njàpp dong laa wax ñaari nit yor njàpp dong toog ci barab jublu penku ñaan yàlla luñ ko ñaan yàlla def ko ndax al nuur leer la saa bu ko nit defee rek lu mu xëcc ci sunu borom subhaanahu wa mu defal ko waaw ñaata junni nit ñoo daje fay tey jii ci benn pàkk bi ak ci yeneen pàkk ñi ci ëpp ñëpp ànd ak njàpp ànd ak sell dara andiwu leen fi wane si wuñ mbubb mu rafet wane si wuñ adduna wane si wuñ dara li leen tax a jóg képp mooy dikk wuy si ndigalul Cheikh Mouhamadul Mountakha lii kaay leen jàng xasida yi Sëñ Tuubaa yi nga xam ne zikrullahi ak salaatu ala nabi ak lépp loo xam ne day sellal xolu doomu aadama képp moo ci ne ak luy defar nit moo junni junni junni nit yi ñu dikk def ko ñu jàpp ne loolu dafa ngeen ne mën nañ koo def ba noppi mun mu neen mun te nekk du neen de mhm. da gis loo xam ne day ak soppiku lay doon boo xam ne sëriñ bi dangeen xam ne li muy def xam na ko ndax kii di leen def loolu di Cheikh Mamadou Mountakha ak a xam li muy def ak a xam li sëriñ Tuubaa bëgg ak a xam fi mu jëm wax naa leen ko barki biig bi may wax ci euh, télévision bi ne leen day bu bis bi dikkee waxuma sax waaye yéen ci seen bopp yéen taalib yi bala ngeen fee jógee ñëpp nañ ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla yàggal ko fi mm-hmm. nañ ko ñaanal mu yàgg fi de mm-hmm. cadeau la bu nun sunu boroom jox te yàlla nañ ko xam mm-hmm. yaakaar naa nag réew mi ñi gën réer sax fi ne xam nañ ko ñi nga xam ne xamuñ ci baatin dara ci saayir la ñuy xamee nit képp am na lu ñu xam ci moom mhm. ñi nga xam ne saayir rek lañ xam daray baatin intéressé wu leen jéego yi mu jéggi bi mu toogee ak léegi te yàggut li mu defagoon ci réew mi ak lim ci lijjanti problème yi mu lijjanti ci réew mi ak fi mu fekk réew mi ak coono yi amoon ci réew mi ak li ci am lépp mhm. waaye leen lu ci nekk mu lijjanti ko ci jàmm ak salaam mhm. ci loo xam ne dañoo jàppoon ne ay nit yi àdduna war a mën loolu ay nit yi àdduna war a mën a mën a def loolu ah ñoo jàng àdduna ñoo ko xam ñoo génnee ci université yi ñoo war a régler mbir yi ah ñoom day xamal nañ seen bopp ne am na koo xam ne moom mi ngi régler mbir yi te ñoom day am na ci yoo xam ne jàppuñ woon ne war na ko mën a régler mhm. ñëpp ko xam nag kenn koo ko xam kon loolu rek ku xamul baati it xam zaahir ku xamul dara ci baatin war ngaa xam zaahir te zaahir si moom Cheikh Mouhamadou Mountakha wane na ko ñëpp gis nañ zaahir si li ko ci yàlla defal bi mu nu ko digalee nu def ko lim nu jëriñ ci zaahir ak lim nu jariñ ci baatin kon bis bii nañu gën a war nañ cee gën a xamaat xaside yi war nañ cee gën a fonkaat xaside yi xamaat ko ci di ko jàng di ko setantal di ko gën a xam di ko jàng di ko setantal di ko gën a xam ndax xam gi ak di ko setantal day gën a yokk sa bëgg ci moom ndax booy jàng xaside yi di xam baat yi du muy firi di xam maanaa yi yow mi xamutoon maanaa yi sax xaside gi neex la boo ci boole woon xam maanaa yi fu mu fooy egg dana la yóbbu fu sori mm-hmm. waaw te it dana tax doo yàq xasida dégg ne am na ñu ma dégg ñuy wax daan sëñ bi nee na ki koy yàq xaw ma lan waaye loolu moom jógewut ci moom loolu moom waxi wax ju ñu wax rek la mag mu toll ni Cheikhul Khadim bind lim bind mu dëppoo ñi nga xam ne ak règle yi nga xam ne moom la ko war a bindee ci grammaire arabe beeg ci langue beeg ci liñ ko war a bindee lépp nga xam ne ka gën a jàng ci àdduna mënul dikk ba dindi ci benn araf mhm. ka dikkoon di contre wala yàlla may ko ci wàllu maîtriser wàllu langue bii muy arabe ka ko gën a maîtriser ak li xaside yi bari bari bari mënut a fexe ba ne lii de moom buñ ko waxee woon nii nii la gën a baax wala warisu ko woon a waxee nii wala wala lang eh, eh, arab bi naxu bi du nii gars yi seet nañ ko de lii ma leen di wax nii mhm. bu leen defe ne gars yi seetuñu ko gaa yi seet nañ ci sëñ bi wàllu gune am na gars yoo xam ne lu ñuy seet ci xaside yi dañ ne ah xaside yi daal ni mu baree sëñ bi wax ko ku ko gëstu daal du ñàkk nga gis ci loo xam ne danga nga ne lii daal nangam te gars yi bu ñu ko gisoon wax ko de bu ñu ko gisoon dañ koy bind publier ko wax ko fépp ba ñu ñoo wax dara dañoo gisul ba ñu ñoo wax dara de bu ñu doon gis benn bayit boo xam ne peese ba wala naxu ba wala arut ba wala la nga xam ne la la war a tëddee am na ci loo xam ne damm na rek ñu wax ko xam nga ne réew mi ku ne fi ne fi mu ne léegi ñàkk kersa gu mat sëkk a nekk ci réew mi léegi mm-hmm. réew moom li gën a baax ci nit léegi moo fi dañ muy kers kers nag fu mu jógee euh, isaa lam tas lu ko yonent lu ko wa nu ko waxee woon isaa lam tastaxyi fafaal ma tacha nit daal bu demee ba ñàkk kersa na def lu ko neex waaw loolu nag moo yàlla nu ci yàlla yàlla na yàlla boole ci mhm. nangu gi yàlla nangu xaside yi ñàkk kerse gi am ci réew mi yàlla jëlee ko ndax léegi amatuñ kenn kuñ jox dara ci orma amatu gone joxatul orma mag euh, euh, jigéen joxatul orma kilifaam na mu ko war a joxe kilifteef daal gars yi dagg nañ ko de amatul ku mu neex nga def loola neex li ñuy tuddee liberté boo xam ne nag liberté xayawaan la rek mala mala yi am nañ liberté ndax lu leen neex ñu def mala yi ci àll bi am nañ liberté léegi nag liberté mala moo am waaye liberté doomu aadama moom yàlla am na liberté bu mu leen jox waaye jëluñu ko bu mala yi lañ jël ñoom mala yi daanaka am na ci ñoo xam ne sorewuñu in humu illa kal an'ami bal hum adal yàlla ne am na nit ñoo xam ne ñoo xar yi ak nag yi ak fas yi ñooyam képp na ñooñu di ni ni mala yooyu di xalaate rek ni lañuy xalaate man ngaa jàng bay bëgg a dee tudd tee nga doon mala xam-xamub gaay yi du tee nga nekk jaahil murakkab ndax doo xam yàlla doo xam yonent bi doo xam lu baax bi bu ngeen yi ñuy wax xam-xam xam-xamub diine bi lay xamal sa diggante ak sa boroom ba li nga war a def nga xam ko ba li nga war a bàyyi nga xam ko waaye ñoom seen xam-xam bii am na ci loo xam ne boo ko jàngoon ba noppi du tee nga nekk jaahilun murakkab doo xam ci yàlla dara kon loolu itam da koy xam kon sëñ Tuubaa wutal nanu lu ñuy sowe tey ak lu ñuy sowe ëllëg loolu mooy lan tey sëriñ bi ne na ñëpp jàngi alxuraan mu sooy réew tey mu ne na ñëpp dem jàng xasida lii ma mooy programme mu Cheikh Mouhamadul Mountakha waaw programme moom jàng leen alxuraan jàng leen xasida yi liggéey leen juboo leen na jàmm am fépp loolu de mooy programme kon yàlla na yàgg soxla nañ ko kon bokk yi mhm. dama ci doon barkeelu ñi ngi nuyu ñi nekk ci diaspora bi ñëpp ñi nekk bitim réew dinu nu seetaan eh, ak ñi nekk ci biir réew mi ak ñi nga xam ne ñi ngi ñuy déglu fu ñu mën a ne ñi ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen xamal ne na ñëpp teewlu léegi sëriñ bi joxe ndigal ci liggéey bi ñu mottali ko mu jeex incha mu ñaan ñu delluwaat kenn ku ne ci say iti waaye nag nañ fi jàngee nag lu bari dañ fi war a jàngaat lu bari moo di nañ gën a fonk xasida yi di ko gën a jàngaat jàng mu sel mu rafet di ko gën a bind bind moo xam ne day leer naññ te ay yàq du ca am barab bii looloo taxoon ki ko sos sos ko fii di taxoon sëriñ Abdou Lahad radiyallahu anhu di sos fii weesuut bëggoon a ñoŋal alxuraan bëggoon a ñoŋal xaside yi ñaar yooyu moo taxoon mu sos fii ñu di ko bind bind mu leer di ko jàng jàng mu leer di ko xam loolu moo taxoon mu sos fii di daaree kaamil looloo taxoon mu sos ñàkk fi alal ju bari fab ko lépp jox ko Seexul Xadim muy ak moomeelam loolu moo taxoon mu sos ko loolu it moom lañuy jéem di doxal ci bi ñu ko tegee ci sunu loxo ak tey Serigne Saliou Mbacké radiallahu anhu yàlla na ko yàlla dolli leer mooy ki ko tegoon ci sunu loxo nu duy bés bu nekk muy gën a jëm kanam xam nga ne fii nu toll nii saal bii nu toog ñi fi dikkoon daaw wala daaw jéeg fekkuñu ko fi woon muy li ñuy tuddee salle de lecture bibliothèque mënu koo ñàkk bu ko amul day mel ni rek daara joo xam ne xalima nekku fa am daa ba noppi amoo xalima ko bindee loolu lay nuru mu mel nii mu mel tey jii ba ku ne man fee toog ànd ak sa sago man fee jàng li nga bëgg lépp ci waxtu wu nekk boo dikkee fekk ko fi ba tey ñu fexe ba li ngeen di gis li ngeen gisut muy téere yi nga xam ne ñoo nekk ci biir di ay junni junni junni di téere yooyu yëpp li muy bari lépp ñu fexe ba def ko li ñuy tuddee numérisation numérisation xam-xam la bu bees ci wàllu bibliothèque moo di téere bu nekk nga mën a xam gan fan téere bu ne nga mën a xam fan la nekk téere bu ne nga mën koo numéroté ba nga xam ne boo jógee di ko seet li téere yi di bari bari bari du la tardeel da koy xam loolu it yàlla dogal na def nañ ko bibliothèque bi ba mat sëkk ba dara manqué wu ci eh, def nañ fi ci liggéeyu ci sëriñ bi ndigal yu mu fi joxe muy barab bi dafa nekkoon barab bu doon senn waaye lépp sëriñ bi defaraat na ko tey jii ba li taw yi bari bari bari doo fi gis genn ndox ngoo xam ne day senn ci bibliothèque bi te xam ngeen ne ndox ak safara ñooy noonu këyit tey jii defaraat nañ fenêtre yi yëpp ba nga xam ne climatisation bi moo tax mu mën a dox fenêtre yi bu melutoon niw mel ñi ngi ci profité di sant daayira bi nga xam ne ñooy menuisier métallique yu Touba ñoo defar li ngeen fi gis nii yëpp ak ci biir bibliothèque bi te benn dërëm génnul macha allah matériel baag main d'œuvre baag ak fenêtre yu rafet yi ngeen gis nga xam ne mooy moo tolloo ak jamono ji ñoo ko fi def te kenn laaju ci fifteen añ sax nanguñu ko cee laaj mhm. ñi ngi sant bu baax it yi mhm. yi nekk ci dëkk bi mboolem électriciens yi nekk biir Touba ñoom ñëpp dañoo àndandoo def bloc def daayira te xam ngeen ne fii bañ ko installé ak léegi war naa dem ci fanweeri at ak nangam. 40 léegi nag loolu laaj na kon xoolaat électricité bi ndax safara ak courant dafa doy waar man léeg-léeg danaa nekk suma kër sax suma xel du dal ngir ngir courant bi bu ci amee dara lu faay rek mën naa yàq lu mën naa def waaye dikk nañ fi dindiwaat lépp defaraat ko te joxuñ leen fifteen laaj yi ñu ab dërëm te xam ngeen ne defar courant bu fii yombut waaw main d'œuvre bi rek xaalis bi du jeex la waxuma laa matériel te lépp lépp defar nañ ko. macha allah kon waa Touba de moom ñu ngi dox xaw ma ku doxul. <laughs> waaye gone Touba yi am métier ñoom ñu ngi dox. macha allah waaw waaw ndax lii yëpp bu fekkoon ne xaalis da koy defar kon dina bari lool. yow mhm. yooyu ma wax yépp ak yeneen ak yeneen. ñi nga xam ne ñoo jël seen bopp di bale nettoiement bi nga xam ne moom dañoo waroon a jël ñu koy def guddeeg bëccëg mhm. ñoo ngi fi di daayira bi nga xam ne mooy daayira bi nga xam ne euh, xidma la buy bale jataay bis ñoom sëñ Abdou Khadir sëñ Jéey euh, euh, yor ko ak daayira bi nga xam ne ay jigéen lañu yoo xam ne altine bu nekk danañ fi ñëw alxames bu nekk danañ fi ñëw ñii altine bu nekk danañ fi ñëw ñii alxames bu nekk danañ fi ñëw defar lépp te laajuñ ci lenn lu dul tàllal seen loxo ñu ñaanal leen ak liggéen Sëñ Tuubaa te ñi ngi xalaat carleur yi ñi ngi fi daayira yi nga xam ne ñooy karo nga xam ne ay karokat lañu moom it mi ngi ci dëkk bi ñoom pare nañu pour lépp loo xam ne soxla nañ ko ñu daal dikk defar ko ci saas ci ni ko sëñ bi bëggee ñi ngi koy def ci jumaa ji ñi ngi koy def ci kër sëñ Tuubaa gi ngi koy def ci kër yi sëñ Tuubaa yi yëpp yàlla na yàlla barkeel seen liggéey amiin barkeel te it day barkeel ndax nag ñi ci ciy génn ci seenu ñax ak ci seen dooleek seen métier di ko def ci sëñ Tuubaa loolu lépp ñu ngi koy ñaan ci bisu xasaay di yàlla defal leen ci liñ bi amiin amiin amiin kon mbokk yi mhm. barab baa ngi mhm. noonu rek la demee mhm. ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp e, di ñaan yàlla subhaanahu wa mu guddal fan yi may nu wér gu yaram e, yàggal fi Cheikh Mouhamadul Muntaxa lool lool lool ñu yàgg feek moom lool lool ba mu eggalee li muy def yëpp yeggale yeneen yeneen yeneen incha allah te loolu am nañ ci yaakaar na ko ñëpp ñaan bu ñu ko ñaanee yàlla def ko euh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu defe naa julli mm-hmm. war naa jot jot na waaw kon nañ julli ah euh, jërëjëf sëñ mustaka sant nañ bu baax a baax xam naa waxtaan wi moom am na solo duñ ci commentaire Euh, noonu nga ko waxee léegi rek xam naa ne incha allahu rabbi ñu ngi am yaakaar di taaxeerlu sëriñ bi kàddu yi nga xam ne ni war na koo yeewee mbokki taalibe yi nga xam ne ni nga ko waxee léegi rek ñu ngi xëy doon jëfe ndigal li muy jàng xasaayit ngir nag euh, mbooleem ay xéewal daal di tàbbiwaat ci li nga xam ne moo di àdduna bi rawatina ñi nga xam ne ñoo di jullit yi kon di sant ak a jaajëfal mbooleem ñi nga xam ne itam ñu ngi doon topp ndax sëñ Moustapha comme ni mu demee nii rek def nañ ko ci ay point yu fasantikoo ci dëkk bi ëpp na fukki point yoo xam ne boo demee matériel bu mel ni nga fay fekk ñuy jàllale li nga xam ne moo fa am ci waxtaan ak jàng xasida fu waaye mën a nekk ci àdduna man ko seetaan lépp nag ngir tàbbi ci ndigal sëriñ bi kon ñu daal ne sant di leen gërëm di ñaan nag lépp lu ñu fi jàng ci xasaay rek yàlla na ko suñ borom nungu def ko addiyaay sëriñ Touba Cheikh Ahmadou Bamba Xalim Rasoul wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu